tey ñu ngi toll si benn nubda yaani euh, lu mu namoo si nubda boobu mooy euh, abiyat la nekku xasida tey mais euh, defe naa ne salaatatu abiyat faqat ku ko taalif mooy Cheikh Mohamed bin Seydi Abdullahi Ash-Shuhayri wa huwa yuxaatibu ibna uxtihi الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ العلوي mi ngi wax ak mi ngi biir di digal ben doomi mbokkam bu doomi mbokkam jigéen eh, bu ñuy wax Cheikh Ahmed bun Cheikh Mohamed al Xaafid Alawi kooku la doon digal si xasida bi di ko jox ay eh, kon nag xasida bi waaju ko taalif nijaay la si kum ko jëmale xasida bi nag dina waxal soo bëggee nekk ku kawe ëllëg nekk sang doo weeru ci kenn te doo des ginnaaw nit ñi duñ dem bàyyi la ci ginnaaw waaye tamit nit ñi duñ la féetee kaw moo xam fii si àddina wala si fa yàlla <coughs> euh, déglu xasida bi xasida bu am solo la hmm. di la jàngal ay mu ngi tàmbalee inna siyaadata fitnatayni fala takun yabna almashaayixi fihima bizahidi xamlu almashaqati wa ixtimaalu ada alwara laysa almushammiru للعلا كالقاعد قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد nee na inna siyaadata naka càng maanaam naka sang fitnatayni mi ngi si ñaar kon nag falaa takun bul nekk yabnal mashayiqi yow doomi sëriñ yi bi zaahidi di aji dëddu fiihima si ñaari yooyu noonu daf laa bëgg a waxal ne soo bëggee nekk sang de nekk sang si ñaari rek la doon ñaari soo ko nekk si ñoom da nga nekk sang yow ki nga xam ne yaay soobu si yoon bi bëgg nekk sang nekk sang de si ñaar yi lañ koy xamee mu ne ko ban ak ban la <clears throat> mi ne xamlul masha xamlul mashaqati yenu coona accepté coona géré ko waxtimaalu adal wara ak gàddu loru mbindeef yi nee na nekk sang si ñaar la nekk gàddu coona ak gàddu loru mbindeef yi parce que doomi Adama ba ko ndeyam juree rek dafa jooy parce que dugg na si kër bi nga xam ne kër googu kër gu jafee dund la parce que ay coono kese la coono yooyu nag dana la dal parce que yàlla ko bind léegi kon nag comme que dana la dal il faut nga accepter ko gérer ko nangu ko gàddu ko teg ko sa ndodd jëm ak moom mu jeex ñaareel bi mooy gàdd loolu mindeef yi mindeef yi loolu yu ñuy jël di ko teg sa kaw nga mën kaa gérer parce que yàlla dafa wax sa alquran ne fa firru ila daw leen jëm si yàlla daw jëm si yàlla nag ñaaro koy waral benn nga gis nga bëgg yàlla ba daw jëm si moom kooku daw boobu daw buñ sant la ñaareel bi nga gis loo ragal nga xam ne kenn mënu sa dimbali ku dul yàlla nga daw jëm si moom kon daw jëm si yàlla ñaari ñoo koy waral bëgg yàlla ba daw dem wala nga gis loo ragal ba daw làqatu si yàlla léegi soo bëggee yàlla ba daw dem si moom kooku da nga mujj nekk xaritam mu nekk sa xarit nga ju nekk mu mujj nekk sa loxo nekk sa tànk loo joxoñ mu dagg wala yow nga nekku sàggan mbiru yàlla yitteelul la waaye yàlla moom bëgg na la boppam istafaaka ala nnaas tànn na la waaye nag su la tànnee il faut nga dem jëmale ko léegi nag mu bëgg yow nga jëmale ko moom yàlla mu jël mbindéef yi xiir ko xiir leen sa kaw ñu lay lor léegi koo daw jëm si mbindéef yi mu becc ngal la nga xam ne kenn sa sul fi ku du yàlla nga daw jëm si moom loolu mooy loru mindee fi addina bi ñaar fi nekk alzalimu wal mazlum aji ji ak kañi tooñ amut koo gis si addina bi mucc si ñaari benn maanaam mu mucc si ñaari benn mu nekk kii tooñ rek wala ku ñuy yow nag kun min al mazlumina wala takun min al zalimina bokkal si ñi ñi tooñ waaye bul bokk si si kii tooñ waaye soo bokkut si ñi si ñi tooñ rek da nga bokk si ñi tooñ léegi yow su lu metti dalee jóge si doomu aadama santal yàlla parce que yàlla moo la def ñu lay tooñ su ko defutoon rek dana def ngay tooñ te xam nga ne nga nekk ñuy tooñ moo la moo gën fi nga nekk yi tooñ ndax nga mën a mucc su lu mu ne fi tooñee nag da nga daw dem si moom mujj tànn la dégg nga nga dem ba jël mbindeef yépp sànni leen si ginnaaw nga xam ne jëriñ dara yàlla rek moo jëri jublo su waaye sa xol yi sa bi génnee nga fi lu dul yàlla yàlla na la acca bismillah yaa ayatuha nafsu l mutmainna irjai ila rabbiki radiyatan mardiya nga gërëm ko mu gërëm la <coughs> ñu lay wax na radiyallahu anhum wa radu waaye ñan dalika liman xashiya rabba kon xam la mashaqati il faut nga yenu coona ak gàddu loru mi nga nekk si yooni xam nga nekk si yooni liggéey nga nekk si yoon bu baax il faut lor dool la nga ne ma lu tax ma ne la kanaa gisoo yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën si mindeefi waaye lor dal na ko xolal abu la mi nga xam ne mooy bàyyi taxam lor na ko guddeeg bëccëg abu jahal mi nga xam ne mbokk mu ko sës la lor na ko kéeféeri màkk yëpp lor nañ ko si jamono bi nga xam ne ñu nekkoon si kaw suuf gëm yàlla ñu tuuti lañ màkka nu mu toll ñu si gëmoon yàlla ñu tuuti lañ dëkk bi yëpp di la pamte pamte di tudd sa tur Muhammad Muhammad lu bees fi indi dof la dafa beew dafa wuti dina bàyyam dafa indi luñ xamut loolu yëpp mais yonent bi accepté na ko accepté na ko gàddu ko géré ko parce que yaa rusul balligh ma ma unzila ilayka min rabbika kon yàlla wax na ko loolu yaa ayuha rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika waaye na wa in lam tafal fama ballagta risala dégg nga fama ballagta risalatahu wallahu yaasimuka min annas yàlla mission bi yàlla dana la arsi nit ñi terewut ni Hmm? léegi kon euh, pour nga jëm si barab yu kawe il faut nga gàddu coono yi parce que yàlla moo ko wax si alquran alif lam mim ahasiba annaasu an yutraku أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تنقى ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين yàlla mu ngi xibaar si alquran nee na ndax nit ñi dañoo njortu ne dañuy wax ne gëm nañ rek ñu bàyyi leen noonu te kenn du leen finaal dañ leen finaal ba xam ñu dëgg si ñoom ak fenkat yi kon ayuha daaiya ila allah muñal xam nga ne lu nekk danga ko daj de parce que yàlla moo la déclaré loolu alif lam mim ahasiba annaasu an yutraku yaqulu amanna wa hum laa yuftanun dégg nga wa laqad fatanna alladina min qablihim wa yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna alkadibin bam ne fala yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna alkadibin nga xam ne yow kon yow yàlla euh, béccangulu la mais dalay nattu pour xam yow si ñu dëgg ñu nga bokk walla safaan ba dégg nga kon fexeel nag ba yàlla natt bu mu lay natt noonu bu mu la tax a xaddi su boobaa rek yow échec nga si sa mission bi dégg léegi waxaana tamit si alquran moom yàlla am xasibtum an tadxulu ljannata walamma yatikum mathalu alladina min walamma yatikum mathalu alladina xalaw min qablikum massathum albasa wadarra wazulzilu xata yaqula arrasulu walladina amanu maahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qarib yàlla nee na da ngeen jot ne da ngeen dugg àjjana te la daloon ñu njëkk ña si métit dalul leen ñooñ ñooñ de ay tat tat ay musiba yu bari dal na leen bañ yëngatu bañ yëngal leen nattu leen ba seen yonent bi naan waaye eh, seen yonent bi ak ña ko gëm naan eh, kañ la ndimbal yàlla di ñëw yàlla na leen wallahi ala inna nasrallahi qarib hmm, ndimbal yàlla de lu jegale mi ngi ñëw allah kon yow yow mi nekk si yoon bu baax yàlla mi ngi naan ala inna nasrallahi qarib kon muñal ya ayuha alladina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqu llaha laallakum tuflixuun kon yàlla daf ñaa sant fa sabrun jamil dégg nga kon il faut nga def xamlul mashaqati nit ñi guruboo nit ñi nekk sa ko mu la taxati parce que inna alladi anqada muhammadan fi makka sa yanqudu euh, sa yunqiduk ki nga xam ne moo musal muhammad si waa makka dana la musal dégg nga am xasibtum an tadxulu aljannata walamma yaclam allahu alladina jahadu minkum wa yaclam alsabirin wa laqad kuntum tamannawna al mawta min qabli an talaqahu fa qad raaytumuhu antum tanzurun yàlla nee na da ngeen nañ jortu ne da ngeen dugg àjjana te xamuñ ñi nga xam ne dañuy jihaad si yéen ak ñu way muñ ah déedéet yàlla day nattu pour ba xam yow si wa ah, si da nga bëgg àjjana wala da ngay ngisal dégg nga yàlla waaye nee na xamul mashaqati enu coona wa ixtimaalu alal wara ak Euh, gàddu loolu mindeef yi mindeef yi ñu bëgg ñu ñu si bëri bëgguñ dëgg par par loolu lañ fi nekkee soo wootee jëm si yàlla nag dégg nga ñi nga xam ne seen xol yi dafa wow dañ la dikkal song la pour rek wuñ la defuñ la dara leen rek lañ la noonee mooy si yoon bu baax boo jëm ah yoon bu baax boo jëm si lañ la noonoo parce olof day wax ne picc mu lakk ginnaaw dafay bari morom dégg nga ñoom nekk nañ si yoon bu bon il faut nga nekk si yoon bu bon yow tamit ngeen yemoo ñu mujj na ah fi ñëpp a yem moo tax yàlla wax na ko sa alquran waddu law takfuruuna kama kafaru fa takunuuna sawaa falaa tattaxidu minhum awliyaa xatta yuhaajiru fi sabilillah yàlla nee na ñu munaafiq yi de dañoo mbébét ngeen weddi yéen jullit ñi comme ñoom nañu weddee après ngeen mujj yemoo waaye nag bu leen bu leen jàpp munaafiq yi xarit kon sooy wootee da nga dajeg ñi nga xam ne dañoo bon bëgg nga bonaale <laughs> nga wax ñu ne doo fi waxee kon mu ñëw sayati nasrullah kama qaala isa bnu maryam man ansaari ila allah man ansaari ila allah kama may dimbale ñu ñu ñu dem si waaye nag ñu baax ñi nee nañ naxnu ansaarullah kon yow fexeel bokk si ndimbal si ansaarullah yi laysa nekkut almucammiru aji fogoyu lil ulaa jëm si kawe kal qaacidi comme aji toog ki nga xam ne dafa uh, wag tànk tubayam pour jëli barab yu kawe ya bokkut ku toog tayal jéemul dara parce que am na ki nga xam ne am na yitte pour yegg fépp fu kawe moo xam fu kawe fi saa dina wala fa kawe fa yàlla waaye danga nga gis tamit safaan ba koo xam ne tëddëg yeewu la fi nekkee koo xam ne jéemul dara léegi ñaar ñooñu seen mission du bokk ki nga xam ne dafa jëm si barabu kawe il faut mu sonn il faut mu daj kee nag mën na toog nekk si lu waaye mujj ga la seet mujj ga la seet kii gañee bis dana ñëw bu nekkee si wàllam jotaay la ku loon jéem jéem barab yu la kooku la ñuy jox mu waxtaan bu nekkee fu ñu toog la moom mooy toog si kaw kee toog si suuf dégg nga bu nekkee xormaal la ku loon eh, góorgóor la ñu kee dañ koy becc ngal dégg nga léegi nag loolu nga bëgg a am il faut nga daj ñu la gën ñoo fi ñoo fi nekk xanaa gisoo Yunus woote jëm si yàlla nga woo waa dëkk ñu bañ ngay gàddaay dugg si gaal gi ñu labal la sànni la si biir géej gi sànni si géej gi doyut jën bi wand la waaye lu mu wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al zalimin yàlla muccal ko eh, yàlla wax sa quraan faltaqamahu alxuutu wa huwa mulim walawla eh, falawla annahu kaana min almusabbixin la labitha fi batnihi ila yawmi yubaathu léegi xool loolu métti nekk si yoonu yàlla di woote bañ sànni la si biir géej gi eh, jën yi jën bi wann la waaye dafa tub si yàlla parce que moom xam na ne euh, allahu yaxrisuhu yàlla moo koy garde dégg nga waaye xoolal seydina yusuf alayhi ba mu nekk si yoon bi di woote euh, lu ko buur ba def wala kii ministre buur ba te koso gi waaye yëmu si loolu séparé nañ ko ak baayam ay at yu bari yaayam gaañu si ba muy xale te ko koso gi di ko teg lu metti waaye xoolal yonent yi fa yaaroon ñu dagg leen si digg bi rey leen xool ibrahima alayhi salaam dugaloon ko si biir safara si waaye xoolal ñëpp ba xam bu nekkee si mbiram yàlla la ñang sa kaw ña sa sa kaw am na si ñoo xam ne seen mujje ma Yuusuf yàlla fal na ko Muusa yàlla fal na ko Suleymaan yàlla fal na ko Daawuda yàlla fal na ko yontu yàlla ma sallallahu alayhi wasallam yàlla fal na ko ba pénc bi yàlla dégg nga Ibrahima alayhi salaam yàlla fal na ko si kaw gaay ñoom ñëpp seen mujj seen seen commencement dafa métti mais seen kanam ndox mu sedd kon xam xamlul mashaqati yenu coona waxtimaalu adal wara ak gàddu lor mi def lay waa ji di wax ne wa udiba malikun wa huddida ahmadu kada shaafiiyu kada shaafiiyu ya rijalu ta'amalu waaye ñu ne mbugal nañ Malik Malik ibnu Anas waaye tëkku nañ Ahmad ibnu Hanbal nakon tamit Shafii tëkk nañ ko kon nag góor ñi seetantal leen ngeen xam ne yéen tamit fii rek ngeen di jaar hmm? eh, qul waxal lillazi ñeel ki nga xam ne talaba sàkku na al ula kawe bi siwaahuma si ludul ñoom ñaar ñooñu mooy xamlul mashaqati wa ixtimaalu adal wara ay haata aka sori tadribu ngay dóor fii xadidin si weñ baaridi ba aji sedd yow mi nga xam ne danga bëgg a kawe te sàkkoo ko si ludul ñaar yi mooy te sàkkoo si ñaar mooy gàddu coono ak e, gàddu loru mi def yi fooguma nga am ko de mi dana sori de doo am de parce que yaa ngi mel ne ki nga xam ne dafa bëgg safara di dóor si weñ bu sedd ñoom bu njëkk suñu naan taal dañ naan jël ñaari ban ñaari weñ yu dëgër di ko dóorlante su xoyantaan dana génn ñu taal si jël ñaari doju bee koccilante ko mu takk léegi yow nag soo jëlee soo demee jël ñaari weñ yu sedd guy nga siy dóor doo am safara kon yow tamit yow mu bëgg sang nekk sang te wutoo ko su ñaari nii yaa ngi mel ne ku safara dem di ko wut si euh, weñ bu sedd wala nga ne tadribu fi baari di mooy yaa ngi dóor si weñ bu sedd xam nga nit soo bëggee defar jaase bant weñ boo koy defaree da nga koy tàngal ba tàng jër nga dóor ko mu jubanti ko waaye soo ñëwee fekk weñ bu sedd guy nga ne da nga ko jubanti def ko jaase da sonn kon soo bëggee nekk sang tamit saako ko si ñaar yi da ngay sonn kon ina siyaadata naka sang fitna tey ni mi ngi si ñaar falaa takun bul nekk yabnal mashaayixi yow doomi sëriñ si bi zahidi bi zahidi aji dëddu fii ximaa si ñoom ñaar mën ngaa wax tamit yabnal mashaayixi bi bilya xamlu mashaqati te mooy yenu coono waxtimaalu adal wara ak yenu loru mindeefi laysa nekkul almucammiru aji fagoyu fii lil ulaa jëm si kawe kal qaacidi comme aji toog qul waxal illazi ñeel waa ji nga xam ne talaba sàkku na alxula kawe bi si waahuma si lu ñoom ñaar ñoom ay haat ak sori tadribu ngay dóor fi xadidin si weñ baaridi bay aji sedd haadihi abyaatun qad fassarnaaha eh, fama fama wudixa fa eh, huwa inaayatu min allahi subhanahu wa taala wama fiha min al axtaa فهو منا إن يريد للإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته